ci euh, discours bi nga xamante ni moom la adressé Sénégalais yi euh, comme ni ngeen ko bëggee en Sénégal euh, bon à vivre et beau à moom dina gën a jëmmal li nga xamante ni moo di démocratie. effectivement c'est ça tout à fait euh, parce que boo xoolee le président Déthié Fall macha allah dañuy sant yàlla Sénégal bu mu amee homme politique un leader. bu nga xamante ne am na ay aspirations à l'élection présidentielle ku mel ni moom aujourd'hui euh, ka nga xamante ne def na déclaration de candidature euh, def un séminaire programmatique avec plus de trois cent cadre kenn ku si nekk di champion dans ton domaine su ko neexoon tey jii dafay tëju mu ne oui je suis ingénieur polytechnicien et cetera et cetera yàlla macha allah dénk na ma xam-xam bàyyil ma bind proposer ko Sénégalais mais humilité wam ak honnêteté intellectuel bi yàlla def ci moom tax na ba moom li ko ñor la ko soxal mooy l'inclusion cest à liggéey ibbi yëf yi yaatal respectel kenn ku si nekk xam-xam bi nga xamante ne moom la ko yàlla dénk ci kaw loolu lañu tëgg un programme bi nga xamante ne tey dina wéeru sur un Sénégal bon à vivre et beau à pourquoi bon à vivre parce que tënk nañ ko léegi wax nañ ni sénégalais yi premier défi bi nga xamante ne tey le président Déthié Fall am na ko mooy c'est de tirer les sénégalais du stress social ñu xamal leen ni euh, fexe ba ñu dund mooy le sentiment le sentiment d'appartenance à un peuple quel peuple le peuple de la Teranga le pays de la Teranga bi nga xamante ni euh, kàddu googu mu mel ni benn slogan wala mu mel ni benn bàkk depuis les indépendances ba tey ñoo ngi koy dégg waaye boo xoolee au fond sénégalais yi nekk ñu tey ci di tund parce que teraanga boo ko déggee c'est vrai ñu bëri dañu yaakaar ne c'est un fait c'est c'est quelque chose de matériel mais c'est à la fois immatériel mais pour mu mën a réaliser wu dafay fekk les conditions soient réuni foofu conditions yi ñu mën a daje léegi pour mu mën a daje le président Déthié Fall loolu la daj boole avec ses cadres ñu tënk dem rapproché wu d'abord des Sénégalais fu mu gën a soree à l'intérieur du pays même au niveau de la diaspora waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne mooy seen bébét c'est sur la base de ça la teg un Sénégal bon à vivre mais bu weesoo loolu dafay ñëw ci un Sénégal beau à voir pourquoi beau à voir parce que à l'image de certains pays tey Sénégal waroon na weesu fii depuis les indépendances jusqu'à maintenant parce que am na yoo xamante ne du un luxe nekkul luxe dafa nekk nécessité suñu réew daf ko war a am euh, boo xoolee ci wàll territoire équité territoire wala aménagement du territoire la nga xamante ne dafa sorte ci mbir mi dafa bari loo xamante ne dañ ko war a joyanti dafa bari moo tax nag le président Déthié tey ci biir discours am euh, mu njëkk a remercier les sénégalais yi nga xamante ne am nañ confiance ci moom daal di ko jébbal seeni parrainage loolu dafay wane benn sign d'adhésion dafay wane benn signe de compréhension euh, de volonté de vouloir accompagner un leader de vouloir l'accompagner à construire ce pays à refaire beaucoup de choses yi nga xamante ne moo nekkoon ay manquements pour que aujourd'hui on puisse passer d'une étape à, un, à,